hello hello everyone man Cheikh Sarr man maa ñëwaat ci seen émission jàng anglais chaque jour ak leçon yi leen di indil ah, bi paa nag leçon bi leen indil mooy ñun maanaam doon leen di questionné ci anglais maanaam question yi nga xam ne dañ koy bëri ci questionné ci anglais ak ah, ni ñuy nuyoo ci anglais yooyu loolu la leen indil tey pour am yeneen émission nag dinañ continuer ci abonné ci King Production te it dee leen uh, am suñu vidéo te it di share suñu vidéo maanaam di ko ne di partager vidéo yi pour ñëpp mën see jot ok ñu dem welcome back euh, comme li ñu ko waxoon ci commencement bi tey nag li ñuy jàng mooy ni ñuy nuyoo ak euh, question yi nga xam ne danañ ko faral laaj lu ci ci anglais waaw pour commencer leçon yi tey dañuy ñëw ak ci nuyoo bi Euh, maanaam mooy greeting loolu lañ koy wax ci anglais mooy nuyoo ñeenti baat yi ngeen gis ci écran bi nag yëpp ñoo bokk li ñuy tekk ci wolof maanaam mooy salaamaaleykum hi wala nga ne hello wala nga ne hey wala nga ne what's ak hello maanaam lu si bari booy nuyu ay mag wala wala koo xam ne xamoo ko noonu lu si bari hi ngay wax wala nga ne ko hello hey wala what's up lu si bari maanaam say xarit nga koy wax langage boobu manaam sa xarit ngay ngay nuyoo noonu xëy wala whatsapp yeneen façon nuyo yi nag euh, mooy good morning wala good afternoon good morning maanaam mooy amal suba jàmm maanaam mooy bonjour ci français good afternoon mooy maanaam ngoonu jàmm good afternoon mooy ngoon jàmm am na beneen baat bu ci def mooy good night mooy guddug jàmm mais loolu tamit dañ ci gën a ñëw incha allah ci leçon yi ñu jëm. waaw ba léegi ñu ci nuyoo bi maanaam booy jàmmal sante kenn numéro un number one bi ngeen gis noonu mooy how are you how are you how tekk mooy nanga nga def na nga def. wala nga ne naka mu numéro 2 maanaam number 2 moy how is your day how is your day limi tek moy naka bis bi wala naka sa bis number 3 manam numero 3 i am fine i am fine limi tek moy mangi ci jamm wala maa ngi sant ñaar yooyu boo ci wax maanaam mooy am fine mooy maa ngi si jàmm wala nga ne maa ngi sant ginnaaw bu loolu jàllee dañuy practice li nga xam ne moom lañ jot a jàng maanaam dañuy nafar li nga xam ne moom lañu jot a jàng ni ñuy nuyoo ci anglais maanaam Musa ak Ami mooy nekk exemple yi maanaam Musa dane hi how are you maanaam dañu ko salaamaaleykum nanga def ami répond I am fine I am fine maanaam ami dana ko maa ngi ci jàmm wala maa ngi sant Musa dellu wax ko ne ko how is your day how is your day maanaam Musa dana ko naka bis bi ami répond ne ko it's okay it's okay maanaam mi moo ngi nii rek ok maanaam mooy mooy nii rek mooy ok mooy comme si comme ça ci français ami dana ko it's ok ñu delo bantuwaat ko Musa dana ko hi how are you ami na ko I am fine Musa ne ko how is your day ami na ko it's ok waaw ginnaaw bi loolu jàll diñu dikk yéen ci questions maanaam ni ñuy laajee ci anglais mooy question di lesson four maanaam lesson 4 baat yi ñuy dëkk ak yéen nag mooy what when where why how loolu dinañ dëkk ak yéen ci li muy tekki waaw baat bi ñuy njëkk a ñëw ak yéen nag mooy what what what mooy lan ci wolof pour jox leen exemple what are you doing What are you doing? What are you doing? Mui lan dafyo. def dafyo. What is it? What is it? What is it? Li muy tekk mooy lan What is your name? What is your name? Li muy tekk wala beneen baat bi ci topp mooy when when li muy tekk mooy kañ pour jox leen exemple question bu njëkk bi when is it when is it li muy tekk mooy kañ la beneen question bi when are you going when are you going when are you going li muy tekk mooy kañ ngay dem benen baat bi ci topp mooy where where where li muy tekk mooy fan pour jox leen exemple question bu njëkk bi where is it where is it where is it li muy tekk mooy fan la example, exemple where are you going where are you going where are you going li muy tekk mooy fan nga jëm fan nga jëm why? Where are you going? beneen ba bi ci topp mooy why why why li muy tekk mooy lu tax pour jox leen exemple why is that why is that why is that li muy tekk mooy lu tax loolu pour jox leen beneen exemple Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Mooy lu tax nga mer. why are you sad? baat bi nga xam ne moom la ñuy mujjee génn pour tay. mooy how how how li muy tekk mooy nan nan wala naka Cô cho an example. How are you? How are you? Mooy na nga def. Loolu ñëw jàngoon nañ ko ci commencement bi. How are you? Na nga def. Beneen question mooy how old are you? How old are you? How old are you? Mooy ñaata at nga am. Mooy how old are you? Kon ba léegi dañ si jàng ne maanaam how mën naa tekki ñaata tamit. ñaata. How mën naa tekki ñaata wala nan ça dépend ci fi nga koy utiliser how nan wala ñaata that is it my friends waaw loolu rek la leen indi woon ci leçon yi tey di leen jaajëfal ci suivre bi ngeen suivre King Production ñi nga xam ne abonné woon naan abonné ci King Production maam leen subscribe di continuer tamit di like suñu vidéo ak di ko share maanaam di am suñu vidéo ak di ko partager ak seeni xarit pour kone di am yeneen leçon yu mel ni peace bye